tey nag ñu daje fi ngir lu am solo euh, ñëpp xam nañ ne jamono jii ñu nekk ci couvre-feu lañ nekk loolu day tekki ne nit ñi mënuñoo génn ci seen kër yi waaye dinañ sóoraale ne am na waaye tawat yoo xamante ni dinañ nekk ci biir kër yi te war a génn Croix-Rouge nag amoon initiative volontaire nekk ci terrain bi ci guddi gi euh, pour di dimbale nit ñi nga xamante ni danañ am jafe-jafe yooyu. rawatina ñi nga xamante ni dañuy toll ci war a accoucher yu mel noonu bi ko Touba ci kanam yëgee Touba ci kanam war a ànd ak ñoom liggéey boobu moo tax mu ñëw jàppale leen ci matériel yi nga xamante ni dinañ ko soxla muy ay jumtukaay yoo xamante ni du mën a ñàkk si liggéey bi lu ci mel ne ñaari ambulance yi nekk suñu ginnaaw Touba kanam pare na pour jox leen ko mu nekk ci seen disposition diirub weer weer woo xamante ni ñaan nañu yàlla balaañ ca àgg jàngoro ji jeex ba jóge fi ci biir loolu aussi teg nañ ci yeneen muy ay alcochel yi nga xamante ni dinañ ko utiliser ak ay déterson ak javel ak euh, masque yi ak gants yi ci biir oto yi aussi Touba ci kanam mettre na leen ñaari chauffeur muy chauffeur yi ànd ak oto yi bàyyi na fi gasoil boo xamante ni aussi toll na ci 500 litres pour oto yi nga xamante ni Touba ci kanam jox na leen ko joxaat na leen beneen cent litre boo xamante ni pour ñoom oto bi ñuy utiliser la loolu nag ab tàmbali la waaye ab tàmbali lay doon boo xamante ni ñaan nañ yàlla fiñ ko àpp mu bañ fa àgg ndax jàngoro ji nekk na loo xamante ni euh, ñun ñëpp ñoo war a àndandoo maaseendoo xeexandoo ko euh, Touba Ca Kanam nag ñëpp xam nañ li ko tax a jug li ko tax a jug mooy askan wi li ñuy wax ci askan wi la jëm te bari na jafe-jafe yoo xamante ni mu ngi ciy am moo tax ñu taxaw ci taxawaay bi ànd ci ak croix rouge. li nu manqué woon lépp nga xam ne croix rouge woon na ko wala boog amoon na ci jafe-jafe ngir matal seen liggéey Touba ci kanam woonu wax dëggal def lu jéggi sunu njort. comme ni mu ko waxee jox nu ñaari ambulance yoo xam te ne bi yéen a koy gis ak ñaari chauffeur yoo xam moom la nu booleet tegal nu ci nag carburant boo xam ne mooy dawal ambulance yooyu diirug weer waaye yëmunu ca jox nu beneen bon carburant boo xam ne oto bi ñu am nun yoo xam ne protection dafa war ci liggéey bu demee nii mu jox nu moyen de protection du demee ni gant masque euh, euh, détergent eau de javel lii nag liñ ci mën jàngate mooy xam na ne croix ñu baree bari xam nañ ko Touba ci kanam wax dëgg yàlla xam ne fii rek mooy buntu bi nga xam ne mën nañ cee jàppale askanu tubaa ñu ngi koy sant bu baax a baax a ci turu président di wax ne lii mooy royukaay bépp kuréel bépp doomu aadama bu bëgg roy ci jàppale doomu nitu tuubaa jàppale doomu aadama nanga roy ci jëf ji waa Touba ci kanam def. ginnaaw bu ñu leen jébbalee ñaari ambulance yi tubaa ci kanam ànd na ak ñoom ngir xool. nii nga xam ne noonu lañuy ñuy liggéeyee ci guddi gi. waa Daaru Marnaan ci euh, ban koñ. ah fi ñu malade bi lu ko daal. kuy aw kusel kooram doom ci wetu forage bi. waaw ah, bii laaj. waaw d'accord buñ jege woo ci numéro bi. muy liggéey bu am solo. jafe waaye seen pas-pas ak seen njàmbaar ak seen xarañteef tax fenn fu nekk bu fa waay woote ngir sàkku ko wallu jëlal ko malaatam yóbbu ko ci structure sanitaire bi gën a jege guddi gi yépp nag nii rekk lañuy dëkkee di dem ak di dikk guddi gii nga xam ne ci la Touba ca kanam jébbale ñaari ambulance yi waa Croix-Rouge ci seen xarañteef ak seen jàmbaar yóbbu nañ juróom-ñetti jigéen yu tolloon diggante ba ñetti ñi ci biir ambulance bi lañu ñu amee doom loolu nag lu am maanaate am solo lool Touba ca kanam ànd ko ak jàmbaar yi di Croix-Rouge gis ngeen soxna si nga xam ne ni moom lañ jëli woon yóbbu ko ci structure sanitaire bi gën a jege ku toll ci diggante bay waaj am doom la guddi gi nga xam ne ci la Touba ca kanam jébbale ñaari ambulance yi waa Croix-Rouge ci seen xarañteef ak seen jàmbaar yóbbu nañ juróom-ñetti jigéen yu tolloon diggante ba ñetti ñi ci biir ambulance bi la amee doom loolu nag di kéemtaan waaye du lu am maanaate am solo lool Touba ca kanam ànd ko ak jàmbaar yi di Croix-Rouge di kañ seenub liggéey di leen joxal nag ñëpp war a jàpp ci lu mel nii loolu tax Touba ca kanam lépp lu mu gis ne njëriñal askan wi la kenn du ko ci jiitu faw mu tàbbal ci yéeneem ndax seeni ñaar téeméer lay dajale ngir xettali doomu aadama yi ci waxtu wi nga xam ne dem ak dikk lu jafe la lool mbokk yi